la woo xam ne xasida gum jël di ko tagg boo demee ci ra yi boo demee ci nuuniya mi xattaaba mm-hmm. boo demee ci ra xal bi boo demee ci ta taiya mi Muhammad Suleymaan xasida gu nekk boo ko jëloon tey sëñ Tuubaa da cay identifier rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di la ko taggal ci ay meloy biir demal ci muqaddamatul am ndax Cheikh Moustapha nabiyun mm-hmm. rasulun nabiyun rasulun yàlla solo moom la yàlla yónni mooy nabiyun rasulullah gën gi jaam mooy rasulullah nabiyun rasul te yàlla solo ba noppi yónni ko mooy rasulullah nabiyun rasulul xayru abdin wa sayyid mooy gën gi jaam te mooy sang ba moom rasulullah nabiyun rasul xayru ka yàlla solo yónni ko gën gi jaam rasulullahi ngoog xalilun abibul mislo soppe baa ngoog xarit baa ngoog ku mel ni rasulullahi kenn mësu koo danoos nabiyu rasulun xayru abdin wa zayidu gën yàlla yónni rasulullahi mam solo xalilun abibul mislo soppe baa ngoog xarit baa ngoog ku mel ni moom kenn mësu koo dégg najiyun xarib ku sell ku jege kaa ngoog zaakir wa zaakir mooy kay tudd boromam di ko fàttaliku te di ko sant mooy ku tabeka jawaadun karimun bil makaarim yusin mooy ku tabeka borom tedd nga jikko yaa ngoog makaarim yi ñoo jikko yu tedd yi lañ koy jariñ naxiyun taxiyun saalihun ku sell kaa ngoog ku ragal yàlla kaa ngoog ku yiw kaa ngoog ku jag kaa ngoog saalih néegu sell jag baax saalihoo ngoog mooy si waaye day defaree nag moom mooy muslih basiirul liman lillahi bil axi ku dox jëm ci dëgg rasulullahi basir ci yow da lay bégal nabi na dibon so yonente bu nu yar bu defar baa ngoog borom teggin ya nadirun liman bil kufri wa sir ku jëm ci weddi yàlla nag nasira ngoog moo lay xupp moom rasulullah nasun bila xisin mooy ko amul benn gax gax amul benn rax nasihun ku sell ngoog bila xisin te kenn kooju ko alimun muallamu ñu jàng baraw rasulullah yi dana mooy alimun muallamu zaxiyun bila mannin kalaama yulayinu ko tabe gi nga xam ne bila mannin du la jox di la ñax mu jox fàtte na ko rasul najibu najibu najibun wa huwa najibun ku sell kaa ngoog jaamakatu yàlla baa ngoog laaye biire kat baa ngoog wala amiruna illati xeer xayra yutminu mooy ki digle lu baax tey tere lu bon kookoy rasulullahi naxibun raxibun mustajibun musaasabun yonente bàyyi ko faggu mooy ka sell mooy ka jag mooy ka baax masiun malaasun wa wama in wa musin mooy wéeru waay ba mooy farkatu bakkaare kookoy rasulullahi nasibu nasibul soo ata ya muxaddamu mooy borom maye mooy ka yàlla jiital moom rasulullahi wa naasu wal miisaanu nimal mumakkanu mooy nattuwaay ba moom rasulullahi kun ca teg balaas yaa ngoog moo lay nabiun loosaanu yonente boobu kat am na mbir mu rëy asimul mu bayee la. mu màgg la mu bayee mu leer la. wal Mustafa Muxtaaru kookee kat mooy Moustapha mooy ka nga xam dañ koo tànn mooy Muxtaaru mooy kan tànn segg ko kookee kat mooy ka yàlla jiital rasul. nu ba watu woo xam la baraaya ku sopp Seyduna Muhammad watu woo xam baraaya. négul ba nit ñi gën a jamono muy jiitoog nu ba baraaya ba yàlla tënugul kenn dana ko nominal la. xablal baraaya. dëkk bi ndéef yi xablal baraaya xadin jalat jëkk bindeef yi la ak nu bu waam leer moom rasulullah loo sab ko xaynal jaddu fii tiini yuxsanu ba maam aadama nekkee ca ban ba la jël pee rasulullah nasidun majidun muusilun man laxol taa egg ka eggale mooy rasulullah man nga yegg doo mën a yeggalee waaye rasulullah daa yegg tey yeggalee wàllal wa mixtaalun wa muxlin wa moolin yaa sama jeex man rasul ahmadou bamba wa ibrahim ak ne fi ba yàgg di fi tax. wa fawzi ak sama pexe man Ahmadou Bamba. bilaana te bu ëntu benn coona bi kaw nii boo ko bëggee xam fooy jëm. xadimal nekk gi ma nekk man xadimu rasul. Moustapha tatabay. ca la lay leere maa xame ca bay mënu maa xame ca jaay mënu maa xame kenn boo bëggee xam ku doon laaj ma rasul. xadimal Moustapha tatabayanu. taxaw ca toolam ba di ko bayee rek lay feeñ ci xam ki ma doon. xadimal Khadim rek lay feeñe xadim mooy tur bi ko yàlla na mulkun alil baqil khadim jaxale asal khadim li man lawu mulkun yeli wasaale ni fil xinami ca lay leera doo ma gis kenn lu may ci loolu man ahmadou bam xadimal mustafa tatabayanu ci liggéey rasulullah lay feeñee xadimal mustafa xadimal mustafa tatabayanu mooy li ma jiitoo ba ñëpp ñeema ca xadimal mustafa nasiatuhu fi sirri ak lay biireem ci lu nëbbu wal jahri li ak lu feeñ leer na ma nañ man ahmadou Ahmadou Bamba bii xaadali rahmaanu sitran waay ci moom la ma yàlla wommatale sutura soo xam ne kenn ko sàggi sama mbalaan du tas na way toori daaramaani fii xidmati yéene naa nag ci liggéey bii ngërëmul yàlla moo ma tax a jóg ilaa xayri nawi saaxa man lay sa yusenu maanaam luy son léega lor nit feneen la jëm waaye du man engagé naa te ngërëm rek laay am ni faali si waa naa bi nabi laaw sada yàlla samay noon kenn du ma défendre samay noon ku dul rasulullah wasixa ilaa xayri la si yëpp tëkk xënu may bëgg di ko setantal ca laa koy amee man yàlla mi nga xam ne mooy aji not dàq na solal na tere na bañ na yalla mi nga xam moy nota kon bi kum joggi do jog ci kum do jog momé moma dakal ma ani ma tax furada wa samay non bu engagé di bern ba mu di quartier ba mu mbolo kenn lay jog di borom bi moma len furada wa masna at baro su ma la yinu daw nan wane ginnaaw te duutuñu des war ku leen rëgal xurum leen jaare yàlla borom bi furada wa masna at baro su ma la xam ñi bern dañoo daw mo xam ñi ñaar dañoo daw ba ñuy mbolo woné nañ gina ba nopp luyu noo ñew di négocier ngir bëgg a furada wa masna at baro su ma la ila nasrina qasaarahu maqyul yi boo xaafan ila min maalo ila sulam loolu moo indi nagu si yow so moo xam ñëw noonu mooy sama wet man kooku mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam billahi ak ngi may gàmmaloo <laughs>